asalaamaaleykum wa rahmatullah seen xarit Amina maa ngi am mbégte leen présenter seen journal. bu si njëkk dañuy àndak ak ak soxna Fatima Balde mu tënkal ñu lu xew ci journée bi. jërëjëf soxna Amina ñu ngi fii ci Lac Rose hôtel Étoile lakk Lac ginnaaw bi ñu agsee ñu dalal ñu ci jàmm defaral ñu ndékki bu bu jaar yoon dalal ñu ci ay chambre yu yaatu bien climatisé ba pare ñu bàyyi ñu ñu noppalu parce que kanam ginnaaw buñ noppaloo ba pare bañ julli ñu euh, ñu julli tisbaar ginnaaw buñ jullee tisbaar ba pare ñu yóbbu ñu ci salle en manger bi ngir amal añ añ nañ ba suur ñu jox ñu dessert naan nañ ba mandi macha allah ginnaaw bi ñu naanee ba pare ginnaaw bi ñu jugee ci salle à manger bi ñu jàll si ci salle de conférence bi ngir amal cérémonie d'ouverture bi cérémonie d'ouverture boobu nag ñu ko ubbee ci tari njàngum alquran bu neex bu jaar yoon ñu jaarale ko ci ay xale yoo xamante ne dañoo mokkal alquran yoo xamante ci jirim mila lañu bokk macha allah ginnaaw lolu ñu amal julli tisba takusan bi ban julle takusan, ñu defaral ñu ay goûter après goûter bi def nañu ñaar équipe ben équipe bi pour góor ñi benen bi pour jigen ñi ban joxe góor ñi sen tenue de sport pour ñu dem def sen sport ak xale jigéen yi tamit ñu ngi amal fi seeni ay jeux kon soxna Amina tey lii moo nekkoon programme journée bi. jërëjëf soxna Fatima sa liggéey rafet na ñu dalal Hamidou Anne président Sakku Yiw ku koy dalal mooy Ndogay Mbay ñu déglu leen. salaamaaleykum wa wa barakaatu. maa ngi tudd Ndogay Mbay di jàngee daaru Aytam bu Jandeer tey.

organiser événement bi nga xamné nekul événement bu bess bu ñu soog def ren chaque année dañ koy def ak euh, orphelin yi donc ànd ak équipe bi yëpp kontaan ci dalal xalé yi fi une nouvelle fois gis sen kontaan rek ñun lolu mo ñi kontaan loo dal est-ce que mën de foog naa ñi ñew fi ñoma gëna mëna wax sax lan moy sàkku yiw. en fait sàkku yiw benn euh, initiative laa ko mën a tuddee benn mbootaay la boo xam ne euh, ñun ba ñu nekk ci France xawoon gën a jeune tuuti léegi moom pala maa ngi am yu weex yi quoi ak yenn euh, àndandoo ak yenn xarit yenn mbokk ci diine ñoo jékki-jékki woon gis ne Sénégal am na foofu ñoo xam ne mën nañ dimbalanteeg ñoom daal suñuy mbokk lañ ñu yore ay daara am jafe-jafe seen daara ñoo xam ne dañoo feebar ñoo xam ne dañoo nekk si dëkk dëkkaat yi amuñu ndox mu ñu naan ñoo xam ne dañu nekk ci prison yi nekk si jaaxle ñoo xam ne sax parfois seen mbokk yi ñu leen seet si duñu am ndimbal ak xeet yu mel noonu ñun ñu jàpp ne war nañ mën a jéem a def dara chaque mois ñuy dajale su mois bi dewee ñu cotiser ku nekk joxe dara Nous ko joxé ñu xol ñaata lañ am ñu am ay 200 euros 300 euros ñu xol actuellement ñan avons fi nekk ñu avons né am nañ ay problème ñu jël xaaliss bobu ñu sédélé ko même day hein même day ñu tolo même day non non ça dépend ku nekk ak sa problème rek xam nga lolu motul 200 000 francs ñu bañu départ suñu première cotisation manam peut-être ay 100 100 000 100 et quelques millions ñu jox ko benn oustaz bu feebaroon à l'époque ak kenn ku yoroon daara beneen mois ñu defaat noonu beneen mois ñu defaat noonu ñu dem ba ci kanam ñu gis ne mën nañ ko def association parce que dañu amoon benn xale bu amoon feebar bu metti boo xam ne li ko waroon faj mu ngi tollu ci dix million ñu ne nañ ko dajaleel ñuy góorgóor di dajale dajale xaalis bi commencé bëri ñu gis ne xaalis nu mu bëree nii ñu bari ñu ngi mën a joxe li gën a wóor mooy ñu créer association mu am compte bancaire mu jaar si ñu mën a lijjanti problème boobu maanaam Sakku Yiw noonu la juddoo ci année 2011 euh, par la suite nag ñu am aussi ñoo xam ne ñoo nekkoon fii Sénégal ñuy liggéeyandoo ak ñoom kenn ku ñëw vacances nga dem ci daara yi nga visité wala nga dem ci àll bi xool yi ainsi de suite muy màgg di màgg di màgg ba ñu gis ne. daara yi pour gën leen mën a jàppale dañuy am ay cas yoo xam ne xëy na day jafe comme ay jirim wala ñoo xam ne amuñu kàttan noonu ñu xool moyen nu ñu trouver pour jàppale oustaz yi ñu leen di fayal ak yooyu loolu moo dem ba jur lii di parrainage orphelin bi dem ba mel nii nga xam ne noonu la mel tey comme ni nga ko ni ko xamee nii. waa kay euh, sàkku yiw dañ ko xamee ñeenti domaine waaye xëy na mën na ko gën a yaatu tuuti sàkku yiw day liggéey ci wàllu ndox di dem ci nit ñoo xam ne amuñu ndox parce que loolu ba fi ñu toll nii dafa bëri ci àddina bi rawatina Sénégal si village yeeg yooyu dañuy gas ay teen di defar ay forage gas nañ lu ëpp 600 puits juróom benn téeméeri teen di dem ak ay forage dañuy yëngatu ci wàllu santé wargu yaram yenn saa yi ñu dem ci ay centre de santé dimbali leen ci ay garab wala ay matériel wala ñu dem ci dëkk wala daara def ay visite médicale ak yooyu tabax nañ tamit ay dispensaires yu ndaw yoo xam ne ñu ngi ci ay village yoo xam ne dañ fa fekk jigéen ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy wasin sax ci saret dañ leen di teg wala yu demee noonu mu nekk lu metti ñu defal leen ci kàttanu yàlla ay dispensaires yu ndaw yoo xam ne mën nañ ci fajoo waaye aussi sàkku yiw dafay yëngu ci képp ku néew doole rek ñu jëm la jàppale muy koo xam ne dafa am feebar munu ko faj wala koo xam ne dafa nekk yaayu jirim wala koo xam ne dafa nekk jeune bëgg liggéey mënta liggéey ak yooyu dañ ci yëngatu mais dañuy yëngatu également ci wàllu prison yi dañuy dem foofu chaque vendredi am ay imam yu fay xutba chaque weeru koor ñu leen di yóbbul ay ndogu tabaski ñu leen di yóbbul ay xar saa saa prison yi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe ñu jox leen ay ventilo di leen di mbali daal di leen accompagner di dalal seen xel ak yooyu waaye am na domaine bu am solo boo xam ne moom lay mujjee mooy wàllu éducation jàng ak njàngale ak yar ci domaine boobu ci la ñuy liggéeyee ak daara yi loolu moo indi parenage orphelin bi

xam seen dimbali ba hmm. xam seen xaalis waaw maanaam mooy sàkku yu li ñuy def fan lay jógee daal waaye li ci jiitu mooy suñuy cotisation parce que comme ni ma ko expliqué sànq sàkku yu dafa tàmbali ci membre yi ci seen bopp ñoo njëkk a joxe waaye nag li fi nekk lépp membre yi joxe wuñ ko euh, boo xoolee turu sàkku yu nga xam ne képp koo xam ne da bëgg lu baax rek bëgg action yi ñuy def nii intéressé na la rek ubbil nañ la buntu pour nga dugal ci sa loxo moo tax am nañ ay nit yu ànd ak ñun ñu nekk fii Sénégal ñu nekk bitim réew comme France lañu ñu association bi am nañ foofu ñu bëri ñu ci jàpp ak réew yu bëree bëri loolu sax moo tax nga gis bu ñuy def dara dañ koy filmer di ko wane loolu du pour bëgg wane li ñuy def rek waaye pour bëgg ku ko gis mën si jàpp nga mën si jàpp ak képp koo xam ne def nga si tamit nga gis ne li nga si def tamit def nañ ko fi ñu ko war a def kon sàkku yiw am na ay li ñuy wax ay donateur ñoo xam ne ñoo ñuy jox ñun dañ siy def waaye am nañ aussi ñoo xam ne ay yeneen xeeti association la yoo xam ne dañuy liggéeyandoo ak ñun suñuy partenaire lañ ñoom mën nañ leen won teen ñu financé ko mën nañ leen jox orphelin ñu pare ne ko mën nañoo ñëw fii ànd ak ñun ci terrain bi kon noonu la liggéey bi di doxee te yool dañuy profiter pour woo ci képp koo xam ne bëgg nga jàpp ci liggéey bi bëgg nga lu baax nga ñëw nga fekk suñu si ndax am na lu bari loo xam ne mën nañ koo defaat dolli ko ci lu ñu def nii ba pare. macha hmm. sa kàddu bu mujj lan la wala ngay tàggatoo waaw sama kàddu bu mujj mooy kàddu mbégte rek man de damay wax ne ci ci année bi yëpp. moment bi ñuy passé fi dafa bokk ci moment manam contenté bu rëy dal donc loolu moom lu fekk ñuy gis ñuy jëm def dara ñu gis né amna ño xamné ñu ci am mbégte di ci profiter loolu dafa bokkoon suñu objectif kon buñ ko gisee dañ ci kontaan donc limay may wax foofu rek moy ñaanal képp ko xamné ne def nga ci sa alal ak sa effort ak say ñaan sax pour li réussir yalla na la yalla fay man nak ma ngi remercier particulièrement membre sàkku yu yi nga xam ne ak bëccëg suba ngone ñu ngi japp ci affaire yi pour mu dox événement bi bala muy am deux mois avant le si di nekk parfois dañuy réunion ba 1 heure du matin pour liñ wara def kon yeen ngeen xam lolu ngeen ñaanal leen mais man membre sàkku yi ma ngi leen di remercier bu baax di leen ñaanal yalla di remercier képp ko xam ne def na si di ñaanal yalla xalé yi tamit yàlla defal leen ndam defal leen tawfiq dafa leen barke ñu yàgg ko fekkee di ko yàgg feete di si yàgg bëggandoo ñu ñëpp walhamdulilahi rabbil alamin yéen ko ko tëdd si lalu hôpital yaa yàlla yëkkati képp ku am jafe-jafe yàlla taxaw mu nekk lu gën ci yàlla sàmm seen alal amiin yal na yàlla yaatul seen liggéey. li ngeen séntu yal na ngeen ko jot. amiin salaamaaleykum. macha allah waaleykum salaam wa rahmatullah. kon mbokk yi li leen leen indiloon ci xibaar di leen jox dig daje suba incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah.